Sidi Diop naka nga gisee ballon d'or bi nga xamanteni Sénégal yépp ñi ngi doon xaar ñu jagleel ko Sadio Mané à notre grande surprise ñu ñëw jox ko argentin bi di Messi. Wa ballon d'or bi nag euh, sama xalaat moy mo du ma sax sama xalaat li ma doon ñaan moy Sadio Mané jël ko parce que euh, sénégalais la euh, africain la ba pare di représenter tout un peuple di représenter suñu drapeau def nak ci football lo xamné Euh, mën naa ne gëj na am ci nit ku ñuul ñun ñëpp suñu suwaay moo nekkoon mu jël ko mais nag yàlla ak dogalam jàmbeeg pexem waaw ñu ngi koy ñaanal nag bii di ñëw ak yi ci tegu yëpp yàlla na ko jël. Sidi umpale woon it presse africaine bi dañoo boycotté suñu doom jii di Sadio Mané dem votel ay doomi jàmbur mën nañ ci cité sax ku mel ni Messi ba loolu sax mën nañoo wax ni moo bokk si li ko jox ballon d'or bi. bon man nag euh, la je trouve que ni africain yëpp Sadio Mané lañ ko lañ ko yéene woon. Euh, mais nag c' pas normal ñu bañ ko fotal mais ku ci fu ci melni ni Sénégal bi nga xam fi la laa dëkk fii moom boo seetloo statut ak euh, actualité bi ñeñ kenn ku nekk ñi yor sa sinam ñi sen seen statut kenn ku nekk da nga doon ñaan ci fee bi Sadio Mané jël ko mais bon xama yalla mom paré na quoi. Youssou Ndour génnee na album bu bess waye ci biir albumam bu bess bi ben titre dal mo ci gëna a siiw muy nay gor ñëpp nak dal di ci gis sen bop mu jur coow lu rëy naka nga jàngatee euh, son Youssou Ndour bu bees bi muy nay. waa dama ko dégloogul nag damay dégg nit ñi di kii nii di wax mais déglooguma ko parce que dama demoon voyage di doog a ñëw téléchargé naa jël naa album bi mais déglooguma ko xam naa dinaa jël sama temps attentivement comme que musicien la di artiste chanteur balaa ma cee wax ma déglu ko attentivement ba xam fi mu woyee ak fi mu waxee. Sidi borom kër yi jaaxle nañ de ndax courant bi yokk nañ ko. waral sax ñu jàpp ci ay nit yu doon marche ngir xeexal Sénégal naka nga jàngatee loolu. waaye nañ ñu dimbali te wàññi ko <laughs> nañ ñu dimbali rek te wàññi ah ndaxte am na ñoo xam ni wax dëgg neex yàlla ñu wàññi mooy mooy mooy mooy mooy mooy li leen gënal ndax dañoo nekk ci dëkk boo xam ni mën naa ni ñi seen loxo jotul seen ginnaaw moo ëpp ñi seen loxo jot seen ginnaaw euh, nañuy bàyyi xel bu baax a baax a baax ci ñoom et c'est important. en tant que doomu banlieue naka nga gisee euh, rey yi nga xamante ni mi ngi am ci banlieue bi te fan yi ñu ràññee ci lool Malika photographe bi fi rey ak euh, waaye ji rey jabaram naka nga ko jàngatee en tant que doomu banlieue. c'est pas normal maa ngi koy gis maa ngi koy gis barki démb ci YouTube bi mais vraiment agression bi bari na trop loolu moom il faut que état bi jël ci ay jël ci ay ay matuwaay bu baax a baax a baax. Euh, renforce sécurité bi surtout tamit gën a defar làmp yi côté yooyu parce que côté boobu lëndëm na euh, bëri na insécurité ba pare ñu gën a veiller ci sécurité surtout xale yi jigéen ñi nga xam ne dañuy xëy fajar gi defuñu lenn teel ni ñuy tëdd fajar ñu teel a jóg dem daani seen doole xam nga kooku noonu di ut lu mu yóbbul njabootam nga dagaale ko fajar gi xam nga agressé ko walla nga def ko dara loolu dafa ñaaw te nañuy fàttaliku ko ni jigéen mooy yaay loo fi mënti mel jigéen moo ko teg jigéen mooy jur yow moom di dem di agressé jigéen jigéen moo la jur te ka nga bàyyi sa kër agressé woo ko kon ki nga fekk ci mbedd waroo ko mënoon agressé ndax moom it jigéen moo ko jur te il a il a appelé à une maman waroo ko woon def loolu yàlla nañ suñu borom saafara gën a dolli jàmm Sénégal. ba barsàq moom léeg léegi moom gëm naa ni yéen waykat yi sax sonn ngeen quoi way ngeen sensibiliser ngeen def ngeen lu ne mais jeunes yaa continuer di dem balu ya dara sa juróomi doomu senegal ñàkk nañ ci seen bakkan naka lan ngay lancer jeunes yu mel ni yow lan nga leen di wax pour ñu toog fii Sénégal quoi naka ngay def ba convaincre leen. waaw loolu tamit gis naa ko mais bon tout d'abord damay masawu bala ma ci wax damay masawu seeni famille ndaxte ku ne xam na xam na doom nu mu jegee ci xolu kon bu la bu la tàggoo dem di tukki am e, ndog-ndog ci yoon bi tout d'abord damay masawu seen yaay masawu seen papa ak seen famille yàlla may leen xolug muñ mais nag e, bon tukki ça ne pas dire que ni tukki rek mooy tekkiloo nit bari na ñoo xam ne ñu ngi Sénégal fii fii la ñu màggee fii lañ juddoo fii la ñu jàngee fii université bii lañ génnee fii la ñu tekkee yor fi seeni teranga comprendre nga bon may gën a sensibiliser waat jeunes yi du du tukki rek moo mën a tekkiloo nit. mën nga tok fi nga tekki mën nga tamit tukki tekki yalla kenn ku nek ak fu ko tuddé mais mais ñu gëna xalaataat ci yoonu ndox mi ndax du yoon bu gën wax deug neex yalla en tant que euh, voix des sans voix euh, may waxal ñi nga xamné peut-être bëgg nañu wax mënu ñu wax yoonu ndox mi du yoon bu du yoon bu gën wax deug yalla du yoon bu gën quoi. waaw euh, sama sama sama fans yi sama soppe yi sama sama sama duma ni sax famille lay wax parce que ño xam ni heure bo wootee ñooy ñew euh, di la dila dila di la di yëkkati seen téléphone di la dila di la euh, ci ñom lay tejé di nuyu di dugg tamit ci hôpital yi ñi nga xamni ño fa nek te te tedd fa sonu bala ñu dugg ci at bu bees bi di 2020 ma ngi ñaan yalla yalla na leen suñu borom yëkkati ñu delluwaat seen seen njaboot ñi nga xamni ñom la ciabi fété ginaaw aussi suñu borom dogal ñu delluwaat seen kër te buñ delloo yalla buñ fa yalla buñ fa demaat ci barke Serigne salim Mbacke ñi fi tena daw nak te nekkatuñ fi ah yàlla xaaral leen kon suñu mbokk artiste bi fi nekkon muy Zula ah joge fi barki dem mo Ndiaye mom tamit ñi ngi koy ñi ngi koy ñaanal yalla ah fa muy teud yalla nako gënal fi mu joge at bu bes bi tamit ñu dugg yalla na nekk atu ngeenel atu atu banex atu noflay atu teranga at mo xamne yalla bu ci kenn am febru pos febru pos moy pos bu dëkkee vide yalla na poos yi xel yëpp dal kër yi bari oto yu bari lépp falaaw yàlla mën na ko te yàlla na ko suñu borom def ah di di di di jox nag waa waa Podor ah rendez-vous samedi 7 décembre incha allah maa ngi jëm Podor eh, maa ngi war a dem tamit Gambie le 24 décembre incha allah su ma jugee Gambie eh, le 24 décembre le le 31 décembre maa ngi jëm Sabadola incha allah ma war fa jouer dîner bu mag eh, le 10 janvier nag le 26 janvier aussi ma ngi le 26 janvier wa lugolo, nañu waaj ndax dama fa demone en 2000 en 2017 deug fa ben concert bo xam ne Louga doyaluñu boobu ba tay ñu may waxat sama retour ah date bi nak confirmé le 26 décembre ah na ñëpp ñëw.